السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaa leen di ziar di leen nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam eh, di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala defal ñu tawfiq ci aduna ak alaxira comme nuñ ko waxee eh, live bi lu tax ñu def live ci page bi lu ko tax a jóg moom mooy leeral bokkaale ak tamit jéem a dimbali nit ñi génne leen ci ay naxaate ak i réer yoo xam ni nekkee nañ ko euh, moo taxit duñ ci dañ di jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na euh, borom bi subhanahu nee na kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bilmaarufi wa tanhawna anil munkar ñu gën ci yéen mooy ñi nga xam ne dañuy digle lu baax di tere lu bon ñoo ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ci yéen ñuy digle lu baax di tere lu bon ñoo ñu gën comme ci loolu lañuy nekk fii nag ñu gën a soxla mooy ñi nga xam ni yeewaguñu ci ci ci mbir yi ak ci naxaate ci naxe ñenn ñi nga xam ne dañuy askanoo ci ay këru diine ñenn ñi nga xam ne dañuy wuyoo ay sëriñ di leen nax di leen nettali ay histoire yoo xam ne amul cosaan di leen utiliser hmm, di use ñi nga xamante ni ñoom ñooy taalibe yi ñooñu ñoom ñooñu tax a ñoom ñooñu tax a jóg ngir ñooñu ñu leeral leen moo tax xool ci laay fii duñu duñu xóotal ci xam-xam dañuy wax li nga xam ne mooy niveau yi nga xamante ni ñooñu mun ñooñ ñooñu noonu la ñuy comprendre ko seen niveau la ñuy waxee ku bëgg na xam-xam bu xóot ak yooyu xëy na bu demee ci groupe alxuraan ak sunna rek wala yooyu foofu moom xëy bu gars di radd dina nekk euh, radd boo xam ne eh, ilmi la bu bu xóot la waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Moussa Kaba maa ngi lay ziar gars yi partagé leen ko mu mu gën a mu gën a yaatu euh, tey nag dañuy jël yenn vidéo rek yoo xamante ni gis nañu romb na fi te mu nekk lu tasaaro ñu daal di koy leeral hmm? ay vidéo naxaate ak i nettali ak i màggal sab sëriñ ab màggal sab maam ci loo xam ne daal doo ko teg fenn fi nga koy teg rek mooy ci ay nettali yoo xam ne fondewul tegul ci alxuraan ak sunna léeg-léeg sa nettali yooyu sax euh, weddi maanaam waxu yàlla moom lay gën a moom lay gën a moom lay gën a jege euh, nit nag bu fekkee ne da nga nekk ci mission mission boo xamante ni ci la yonente yi nekkoon aki i saxaabaam du ñàkk ñu la noonu wala nga jéem a nekk ci mission duñ ne sax dañoo nekk ci mission boobu mais dañuy jéem dañuy jëm parce que ay nit yu doyat lañ yoo xamante ni euh, suñuy bakaar dafa bari dañoo doyadi lool suñuy xam-xam néew lool waaye nit amul kenn kuy nekk ci yoon bi nga xam ne ci la yonente yi nekkoon moom mooy leeral tawxid dénoncé bokkaale dénoncé bida dénoncé caaxaankat yi xalifa abdullah ñu lay ziar bu baax macha allah ak keneen ki seen comme yonente yi loolu moo nekkoon seen mission mooy dénoncé bokkaale ak ñii di naxaate yonente dañoo ñëw ngir ñii di naxaate ñu leeral seeni mbir moo tax Moussa dañ ko envoyé woon ci Firawna Firawna doon nax nit ñi ñu envoyé ko ci Moussa ngir naxaate yooyu mu leeral ko niki noonu Namrud hmm, moom moo buure woon eh, jamono Ibrahim yàlla yónni Ibrahim ngir mu ñëw leeral naxaate yi nga xam ne Namrud da koy naxaate mboolee mi yonente comme képp ku nekk ci mission di woote lu baax di digle lu baax di tere lu bon nekk ci mission yonente yi di leeral nit ñi lan mooy xiit ak lan mooy bokkaale comme kooku alaakulli xaal day am ay noonu ala kulli xaal du ñàkk ay noon dina dégg ay saaga dina dégg lu nekk waaye nag loolu dañ koy def adiya mu jàll te daawa dafa bëri ay façon woote ci yoon yàlla dafa bëri ay façon euh, jàngale ci façon yooyu la bokk leeral ci façon yooyu la bokk dajji tontu ci façon yi la bokk tamit ñay bokkaale dafa bokk ci daaw booy daaw ngir dénoncer bokkaale ak leeral tawxid ñi nga xam ne ñoo ci woote nga leen di dajji ñi nga xam ne ñoo ci woote nga leen di dajji loolu dafa bokk ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy daawa ñi nga xam ne ñoom ñooy fësal bokkaale ak di ko tasaare ngay dajji seeni waxum leer ko gars yi partagé leen ko ñu ñëw leeral laal la yàlla jëriñ ci te gis nañ ni euh, système bi bañ ko tàmbalee ba def gis nañ ci résultat boo xamante ni bu bu yaatoo yaatu la boo xam ne ñu bari wax dëgg fa yàlla Euh, ñu ngi ciy dundeeku bu baax a baax a baax yàlla na ko yàlla yokk def ko mu nekk lu lu lu barkeel comme dañuy teg ay vidéo xam nga vidéo surtout ci page bi ngeen nekk ni euh, mbokk yi am na ay vidéo yu ci partagé yoo xamante ni ay vidéo yu doy waar la ay vidéo mboosoor yu yu yéeme la yoo xam ne dafa laaj décortiquer dafa laaj tontu ta ña koy wax ay sëriñ lañ leen jàppee di leen sukkalaka raamalaka def ay yàlla wala ñu jàpp ñoom ñu jàpp ni ñi ay borom xam-xam di ay wax rëy ko wax yooyu day aajowoo ñu leeral ko comme mbokk bi euh, mën na balancer vidéo bu njëkk ñu tàmbali incha allah na yaatu sama gars yi. wax ci télé ah, de dire que Xaadimu Rasuul. kaar yaa ngi wër Ndakaaru lu ñuy wax dem dikk. kenn mu sëreem dikk hmm? dégg naa Youssou Ndour naan Alboury demal seen ñëw Alboury bi doon benn ñëw kooka nga doosoo du ñëw doo <laughs> ko xaaree musiba dal la waaw ñu ma ba jox nga somb du ñëw wa am na fu muy waxee ni sëriñ bi mooy yàlla foofu laa bëggoon wax jooju laa bëggoon mu génn hmm, gisuma wax jooju ab bu màgget la boo xam ni war na am ay quatre vingt ans war na passé soixante dix ans moom mooy wax wax yaa xam nga problème mu Sénégal moom mooy ay ay magum jëm. Hmm. kon sëñ Bamba yàlla. Hmm. maa ko wax ci télé bi. waaw. le moment est venu de dire kee Xaadimu Rasuul. Hmm. kaar yaa ngi wër Ndakaaru lu ñuy wax dem dikk. waaw kaar boo seen dem dikk Ahmadu rek dem dikk kenn mus dem dikk. dégg naa. Youssou Ndour naan Alboury demal sa ñëw Alboury bi dem benn ñebe kooku a nga doosoo du ñëw da ko xaaree musiba dal la waaw nga ba ko nga somb du ñëw. comme mbokk yi dégg ngeen kii kii mu ngi toog ci plateau télé boo xamante ni bi télé benn benn tarixa la télé bi ña ko ay murit lañ ñoom ñoo moom télé bi. paa bi toog fa ne sëriñ bi mooy yàlla ña ko wër ñëpp kontaan ca la muy wax di reetaan gis gaay ñu ngi apprécier paa bi di reetaan kontaan loolu ci lu paa wax lan moo leen kontaan loo lan moo leen reeloo mooy paa lu wax ni sëriñ Tuuba mooy yàlla ñuy ree ak kontaan léegi mbokk nit ku taxaw ne Serigne Touba mooy yàlla soo ko tontoo di leeral wax jooju ñu ne la yow da bañ tarixa murit di ngeen gis sax ci commentaire ku la ne yow da bañ tarixa murit parce que yow yaa ngi tontu koo xam ne nee na Serigne Touba mooy yàlla ñu ne la yow da ngaa bañ murit léegi xool leen fu ñu àgg ñun Sénégal mbokk yi est-ce que duñu tiit bu ñu demee ab réew boo xamante ni ay kilifa yu waaj a dee ñooy toog ne sëriñ bi moom mooy yàlla ñu def ko bàkku ña toog ña toog ak moom def ko bàkk di apprécier wax ji kontaan ci di muñ yéen dëkk boobu yéen ngeen foo ni dëkk boobu c'est pas du normalul courant cher fa ngeen foo ni dëkk boobu normalul ceeb cher fa ngeen foo ni dëkk boobu normalul diwlin cher fa ngeen foog ni loolu normalul quoi ngeen foog ni loolu normalul mbokk yi dëkk boo xam ni fa la ñuy waxee ni sëriñ bi mooy yàlla ña dégg wax ji kontaan di ree di apprécier di yëngal bopp di taccu léegi dëkk boobu yéen est-ce que dëkk boobu yéen a ngi xaar mu naat ñëpp noppi ci nag gis lii moo jar mer lii moo jar a kaas ndax lii mooy ki tax ñu ñëw ci àdduna ak ki buure ñëpp lañ ne kooku palaasam am na keneen ku ko yor doo dégg gaay yi xeexal diine di kaas doo dégg gaa yi xeexal jikko yi mer man damay répété lii à chaque fois parce que man mënuma comprendre ñoo xam ne nee nañu diine lañ fi nekkal dañuy sàmm jikko sàmm diine jour bu ñu jëlee place yàlla jox ko keneen nemm la ñuy jël nemm la ñuy def doo leen dégg activiste yi nga xamante ni yàggul dara peut ba fi mu Moustapha Diakhaté waxee benn waxam muy wax bu tegginu ñàkk bu teg bu ñàkk tegginu ci yonente bi gis leen ñëpp génn parce que des fois day am relation ak politique mais yii doo dégg kenn ku ci ngaan parce que sëriñ boobu non kenn ñamewul taxaw ne li nga wax ni sëriñ boobu mooy yàlla du dëgg Ah, parce que yaa ragal ay nit daw la wala yaa ngi ragal ñu saaga la wala yaa ragal leneen ak leneen ak leneen yàlla nee na kii paa bi bu fekkee mandiwul yéefar la bu fekkee ba mu wax lii mandiwul mi ngi ànd ak sagom yéefar la génn na diina lislaam yàlla nee na wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fa dalika najzihi jahannam dalika najzi zalimin képp koo xam ne nee na am na beneen yàlla bu bokkut ak yàlla kooku jahannama lay tar lay lay tabbi te loolu lañuy fay yëfër yi te loolu moy payor ñeel ñeel ñi nga xamanteni ñom ñoy ñom ñoy ñooy yi senegal Sénégal rek ngay dégg li diw moy yalla Sénégal daal lañuy japp yalla ay nit ne nyom ñooy yàlla ñom ñoy sak asamaan ak suuf Sénégal daal nga koy déggé waaw ba paré nak kenn amul droit wax nak manul ah nit nit ne serigne bee yalla ñu ne la manul ñu ne la no nopil non yow bul weddi lu weddi yow da nga wara mandu luy wara ni serigne bi tamit du yalla dafa bari waaw nañu utiliser xar jalu may dem ci aya serigne bi dafa gane si aduna amna papa amna yaay yalla qul huwallahu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad jurul kenn kenn jur ko serigne bi dañ ko jur dafa jur dañ ko jur te dafa jur ok faji sak nit ñi non lañu nit ñi non lañ ko sàkke état bi yu mu jaar ba formé ba nek nit ba formé wu nek nit état bi nit ñepp jaar sëriñ bi fa la jaar benen bi euh boy nek yalla il faut am lo sak il faut am lo sak sëriñ bi sakul sax melantan sëriñ bi sakul sax melantan sakul pep souf réalité la benen moy pour nga الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fi l ard yàlla mooy ki nga xamante ni moom yàlla borom subhana taala mooy kuy dund dund bu sax bu éternel bu dul jeex boog mooy dund boo xamante ni ñàkk dund jiituwu ko te dund boo xam ne tamit dee amu ci kooku mooy alxayu alqayyum te sëriñ bi nañ xool sëriñ bi faatu na wala faatuwul faatu na xam nañ ban at la faatu te boo demee ca dëkk ba bàmmeelam nit ñaa nga fa di fa ziar comme kañuy ziar kan la comme kañuy kalla bu fekkente ni yàlla la yàlla du dee léegi ka faatu ñu koy ziar kooku kan la nañu wax kooku kan ka tëdd foofu ñu koy ziar di fa sandi xaalis di ko di ko wër kañuy dem di ko màggali kooku kan la yàlla ñu yàlla musal wallahu mustaan naam mun nga indi beneen yàlla waa gis ngeen fii léegi léegi vidéo be Serigne Touba mo yàlla vidéo bi Cheikh Tidiane mooy yàlla cey Sénégal cey Sénégal kabbiru ala Sénégali arbaan Sénégal bu yeboo xoolal ñu kabbaar jullee ko. kabaar ñeenti yoon mooy ñu jullee néew jullee ko Sénégal quoi. Vraiment, Chérif Diédhiou Nena, je remercie c'est grâce à vous que je me suis trouvé mm. retrouvé Yalla yalla barkel, Chérif te saxal ñu ñun ñëpp boole ñu saxal Li rek mooy tax ñuy wax li ah. lii nga tax ñuy wax li kessa la nag pour nit ñi dindeeku yàlla yàlla dindi ñu euh, ñeneen léegi ke Serigne Touba mooy yàlla dégg ngeen ko kii nga ñëw fii ñu ne la Cheikh Tidiane mooy yàlla Sénégal la de ba tey ci biir senegal ba tey lañu tontu ci ku ne Serigne Touba mooy yàlla moom la ñuy tontu rek ci ku ne Cheikh mooy yàlla ñii tamit ay yëfër lañ bu fekkente ni màndi wuñu dara dalu leen ñu ngi ànd ak seen xel ba ñuy wax li ñii ay yëfër lañ génn nañ diinal lislaam ndax ku ne mbindeef yàlla rek yéefar la yàlla mooy kenn ki nga xam ni dafa melal boppam ca suuratul ixlaas qul huwa allahu ahad yàlla kenn la mooy al ahad kenn la ci melokaanam kenn la ci lu mun a ci lu mën a def kenn la ci jaamu ñu koy jaamu kenn la ñuróowu la kenn dara dara dara lu muy sàkk kenn la ci keneen munu ko ay jëfam kenn la ci keneen munu ko ñaareel bi mooy allahu samat yàlla mooy koo xamante ni dara du dugg ci moom dara du génn ci moom yàlla tamit samat tamit firee nañ ko yàlla mooy koo xam ni ku am soxla ci moom ngay dellu aduna bi ba mu daj ku am soxla ci moom ngay dellu koo kan moo ko am kenn muy yàlla as samad allahu samad firee nañ ko mooy yàlla mooy koo xam ni dara du dugg ci moom dara du génn ci moom dara du dugg ci moom dara du génn ci moom mooy ñam du dugg ci moom ñam du génn ci moom te ñii ñuy wax ay yàlla la est-ce que daan nañ lekk daan nañ lekk est-ce que lañ daan lekk daan na génn daan na génn lam yalit jurul kenn moom yàlla ñii ñu naan yàlla la ndax dañ leen jur wala juruñu leen dañ leen jur dañ leen a jur juruñu kenn est-ce que juruñu kenn am nañ ay doom walam yakul lahu kufuwan ahad amul kenn ku ñuroog ñoom ci lenn amul kenn ku ñurook ñoom ci lenn Fatima Diallo soo mënee partagé la kii bi ci groupe bi ndax fii ma nekk duma ko mën a partagé foofu barakallahu fiik amin Souleymane comme dama bëgg wax ñun fan lañ àgg ñun sénégalais yi Sénégal yéen ñi di kaas dund bu cher yéen ñi di kaas ay non yàlla lu tax mu ñuy booleeg ay ay Wàdd ak Juuf gi ñu ñuy téye du ñu ci ñun la ci ñun la waaw lu tax yàlla téye ñu dañu escanté dañu booleeg ay njiit yoo xam ne dañuy faj bu baax dañuy faj bu baax ñuy souffrir non ci ñun la parce que dëkk boo xam ne nee nañu am nay sëriñ yoo xam ne ñoo yàlla dëkk boo xam ne nee nañu am nay sëriñ yoo xam ne ñoo sàkk asamaan suuf mais c'est normal yàlla boole leen ak ñoo xamante ni dañ leen di téye di leen duma dañuy bu baax non il faut ñu il faut ñu fay conséquence yi non il faut ñu koy gis lu ñu dal sax xamuñu ko. dañu xoolaat dund bu metti bii ñuy kaas wallahi dama leen wax ma ne leen exemple. ñu bëri ci jeunesse bi ku ñu yaakaar muy Sonko nafalu nafalu laa wax de lii continuer di am ngeen xool ngeen xool moo tax nar na am problème ku ku nar a falu nar nga am problème quoi parce que ak jikko yi sénégalais ak pas-pas yi sénégalais ñu yor ak sénégalais yëpp bu ñu yab yàlla non yàlla ci loolu la leen di natoo moo tax Sénégal depuis kañ ñu ngi kaas di wax est-ce que duñu taxaw ñu xoolaat gis nga boo koy fontoo dafa am fu muy jaar da lay boole ak ay nit nitu yow lay boole rek ñu lay escanté doo ci mën dara ndaxte ñii nga xamante ni seen kër yi ñoom ñooy ñoom ñooy taa jamono jii ak ñi nga xam ne dund bi ñoom la cher ci ñoom mais ñoom ñooy dem naan sëriñ bi yàlla la ñoo ñooy naan sëriñ bi mooy borom na am ñoo ñooy naan sëriñ bi ñoo ñoo naan sëriñ bi laa yaakaar adduna ak àllaaxira ñoo ñoo naan du ma julli du ma woor su ma dewee dugg àjjana moo tax yàlla di leen booleeg ay njiit yoo xam ne leen di téye leen duma di leen dóor te duñ ci mën dara te duñ ci mun dara ñu dem ñu xol benen video jeen mbay amin amin amin jeen mbay amin ñu xol benen video ci ku faatu bu moko ci difu tam suuf tuba mën na def kon ku fi dëkk te sax fi neew na seenu seen aljana ci seenu yalla gu seen teranga ajuma ko ci seen mm, sakku wërsëg bu bari te ñi fi dëkk ñëpp xam ne loolu Sëriñ Tuubaa faggul ne ko ndax am nañ yaqin ci ne ku fi dëkk boo liggéey da nga tàbbi àjjana waaye dund itam kenn ku ci xam nga ne sa teranga Sëriñ Tuubaa la kon nag ñu ngi ci soññ bokk teel bi yëpp lépp lu ci waaye man voilà dégg ngeen ki wax. ki wax xam ngeen ko ab porte parole la mu wax ñaari wax mu ne sëriñ bee wax te waxul sëriñ bi fan la ko waxee benn parce que boo ne sëriñ mooy wax war nga wax téere bi fan la ko waxee ak fan la ko bindee wala nga wax kan moo ko nettali parce que yow fekkee wo jamono sëriñ bi fekkee woo jamono sëriñ bi mu ne sëriñ bi moo wax mu ñetti ñaari wax la tuxal ci sëriñ bi mu ne sëriñ bi moo ne ku dee ci suuf soosu day dem aljana ñaar bi mu ne sëriñ bi moo ne seenu ko ci jaamu yàlla bu néew maanaam sëriñ bi nee na jaamu yàlla bu bari taxul nga dugg aljanna maanaam jaamu yàlla bu néew maanaam mun nga bañ a jaamu yàlla tuutil say jaamu yàlla mu dugal aljanna ñaari wax la wax lu ci njëkk mbokk yi mooy la mu wax yëpp ñaari yëpp alxuraan ak sunna da koo dégagé warul ay waxam la moom ay waxam yoo xam ne moom moo ko wax moom moo toog di leen parce que gars a à chaque fois nag ñoom noonu la rek saa ñu bëggee xëcc nit ñi rek bëgg nañ xëcc nit ñi peut-être ñu ñëw moo tax ñuy wax seen seen seen genre wax yi nee na ku dee ci suuf soosu aljanna nga jëm ku dee ci suuf si rek tayib mbokk yi balaa dara ban suuf moo gën ci suuf yi suuf yu gën ci suuf yi mooy Makka ak Madina très bien Abu Jahl fan la dëkkoon du Makka Abu Lahab fan la dëkkoon Abu Lahab fan faatoo du Makka Abu Lahab yàlla da koo rëbb ci saar tabbat yada abi lahabin wa tabba da koo rëbb Makka faatoo te Makka moo gën ci suuf yi te yàlla nee sa yasla naaran zaata lahab dina dugg safara su tàng jër boo xam ne day lakk bay xolli der yi abu lahab màkka faatu waaye gëmul woon yonente bi gëmul islaam bokkaalekat la woon bokkaalekat la woon daa da daan gëm ni xërëm yi da daan ñaan xërëm yi di waatee ci xërëm yi comme tey ñenn ñuy waatee ci ay sëriñ waaye ba mu deewee yàlla mu ne tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasaba sa yasla naaran zaata lahab dina dugg safara su tàng Abu Lahab fa la dëkkoon màkk suufi gën ci suufi waaye ginnaaw ba nga xam ne bokkaalekat la ba mu faatoo yàlla nee na la jëm Abu Taalib bàyyi tuxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon protéger doon ko dimbali di ko protéger di ko aar yaroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yar ko ci këram abu taal mu demee bay sukkaraat bay waaju faatu yonente bi sallallahu ko sama baay tax waxal laa ilaha mu nekk ab baat boo xam ne dama la koy layalee ca yàlla mu ne déet man dem naa ba màgg ba àgg fii mënatuma dellu sama diine maam kooku màkka la faatoo màkka ba mu faatoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne da koy ñaanal yàlla yónni jibril ne ko neel yonte mu wàccee loxom kii yéefar la maa kaana linnabi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walaw kaanu uli qurba min baadi maa tabayyana lahum annahum ashaabil jahim mu ne ko jaaduwul ci yonente bi muy ñaanal bokkaalekat yi ginnaaw ba mu leen leere ni safara lañ jëm kan moo gënoon abu taalib te màkk la faatu te suufu màkk moo gën mboole mi suufi waaye bokkaalekat la woon moo tax ba mu deewee yàlla mu ne safara la jëm nee na ab suufu maamam wala suuf sa mu nekk nga xam ni amul fenn fu alxuraan ak sunna tuddee am ngeneel ci suuf soosu amul amul fenn léeg-léeg ñu dem jëli benn aaya ne yàlla tudd na suuf si ci alxuraan ne tuubaa lahum wa ma maab alxuraan aaya boobu <laughs> foofu yàlla muy wax ci ñu gëm yàlla mu ne ñi nga xam dañoo gëm yàlla ragal ko tuubaa baat la baatu arab la lu muy firi moom mooy am na benn garab ci aljan tudd tuubaa léeg mu firi texe léeg mu firi texe léegi nag nit nag mën na jël baat boobu tuddee ko dëkkam mais ça ne ko alxuraan dëkk boobu la ci namb déedéet li amul benn ngëneel bu ñëw ci suuf soosu amul benn ngëneel mu ne suuf si ku ci dee rek aljana xoolal nu muy yombalee nit ñi nu muy gàttañ lu woo nit ñi di yàccaaral nit ñi ci jaamu yàlla léegi nee na deewal ci suuf si rek moo tax yéen wallahi gis nga yéen ñi di wax nii ragal len sen borom ragal len yalla wallahi keroog yowmal qiyam di ngeen ko layo bu fekke da ngeen japp ni milliards yi ñu len di jox ngeen tok ak note bi ngeen note taalibe yi tax ngeen tok di wax lu len neex fatte alakhirah fatte ni alakhirah amna, fatte ni di ngeen faatu di len ñatt duggal len ci suuf di ngeen dekk comme ñepp di ngeen ak yalla wa kullun aatihi yowma alqiyamati farda wallahi boo leen xalaatoon loolu balaa ngeen di wax di ngeen xool baax li ngeen di wax gis nga ñii ngeen di réeral ku nekk ci yéen dina taxaw yowmal qiyaam la yokk ak yow ñii ngeen di réeral boo leen taxawee yowmal qiyaam dañuy taxaw ne yàlla mbugalal leen deux fois loolu la ñuy wax te yàlla loolu lay def deux fois la leen di mbugal aatihim azaban di fay ni yàlla mbugal leen deux fois te yàlla loolu lay def yàlla leen mbugal deux fois yàlla loolu lay def xalaat leen bis penc xalaat leen yowmal qiyaam dund aduna bi yàggul jàpp ni noflaay bi day yàgg li yàggul ngeen di toog ñu def la benn porte parole wala ñu def la benn xalif général nga toog rek di wax lu la neex di teggil nit ñi jamu yàlla di yàccaarloo nit ñi ci jaamu yàlla naan ñoo leen suuf si boo deewee rek aljana nga jëm naan seen sëriñ bi nee na seen jaamu yàlla wéquma ko seen aljana wéquma ko ci jaamu yàlla bu bari fan la ko sëriñ bi waxee indil bayt bi benn ñaare bi mooy wax jooju wërul jaamu yàlla mooy dugal nit aljana jaamu yàlla moo tax ñu ñëw fi jaamu yàlla ak yërmande yàlla ñooy ànd da ngay jaamu yàlla ba pare nag sàkku yërmande yàlla ñaar yi ñooy ànd yàlla daf ñoo sàkk ngir ñu jaamu ko wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun binduma nit ak jinne ludul ñu jaamu ma loolu la yàlla wax loolu la yàlla wax yow nga ne noonu sëriñ bi nee na eh, seen jaamu yàlla sir àjjana wékkuma ko ci jaamu yàlla yu bari yàlla borom bi subhanahu wa taala xamal nañu ñuy jaamu yàlla ñooy dugg aljanna inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adinin tajri min tahti al anhar ñi nga xam dañoo gëm yàlla di jëf di jaamu yàlla wa amilu salihat di jaamu yàlla di jëf lu baax mu ne ñooñ seen payoor mooy jazaohum inda rabbihim jannatu adinin seen payoor mooy ay aljanna yu daw ci suufam ay dex yàlla dafa ne waa aljanna kulu washrabu hani am bi ma kuntum taamaluun lekk leen ngeen naan di ab payoor ci jaamu yàlla bi ngeen doon jaamu yàlla lekk leen ngeen naan muy ab payoor ci jaamu yàlla yi ngeen doon jaamu yàlla yow nga taxaw nga naan sëriñ bi nee na seeni seeni aljanna aljanna yokkuma ko seen jaamu yàlla bëri taxaw di yàccaarloo taalibe yi daal naan waa gëmal sëriñ bi rek waaw yow daal deewal ci suuf si rek même boo jaamuwul yàlla fan nga teg loolu foo ko fi rek nga ko teg fii dong nga fa nga ko teg nag fii rek banexu bakkar rek tegoo ko fenn nak tegoo ko fenn furu sa banexu bakkar kesse nak nañu ragal yalla suñu borom xamni dañuy faatu bu faato dañuy rendre compte kep ko musoon réeral di nga taxaw yalla taxaw lako dina len régler aduna bi neex rek tok say milliards tok say pare tok di wax lu la neex rek bëgg xëcc nit ñi di wax lu la neex rek ragal len yalla ci li ngeen di wax xam ne da di dee li ngeen di wax xam ne xam ngeen ni du dëgg xam ngeen ni amul xam ngeen ko xam ngeen ni lii amul mais ñi ma yërëm mooy ñi nga xam ne dañ leen jox ay nopp te duñu xalaat ñi nga xam ne dañoo réer te duñu xalaat ñi nga xam ne jël nañ leen dugal leen seen xol ngir seen maam ngeen leen di naxee ci seeni maam di leen jaare ci seen turu maam di leen nax ragal leen yàlla xam ngeen lu nekkal ci réeral nit nit boo xam da nga ko réeral xam ko xam ngeen loolu xam ngeen danger bu ci nekk nit boo réeral téye ko di ko wax mu wóor la ci a nga téye ko di ko réeral naa dee ci suuf si bul jaamu yàlla te ba gars yi naree dem jël gaal gi pour rëcc dem Europe ngir dundal seeni njaboot ngir dundal seeni papa ak seeni yaay seeni jabar seeni doom fii nga taxaw nga ne ku dem dafa xaru waaye bu dee ñëw ci yéen seen événement ñëw war a indi addiya nga ne ñëw leen ku ñew bo déwé aljanna nga jëm leen wallahi yeewu leen dañu bëgg rek ngeen yeewu dañu bëgg rek ngeen yeewu xalaat leen tuuti quoi étudier leen seen xel tuuti rek ngeen xalaat ba xam est ce que lii yanu na maanaa kii lu muy wax est ce que yanu na maanaa jaru sax ñu leen ay wala hadith est ce que lii yanu na maanaa yalla yalla musal indil beren vidéo mbokk mi ngay julli ba fajar waaw bu la Serigne Touba tere woon julli nooy def déggal lim ko laaj pour wan la murit lu xam-xam ba bari bari lu jaamu gën rëy rëy bu la sëñ tuubaa gën a lépp sag murit des na dani ko bu la sëñ Touba tere woon julli. Mhm. yàllaa ko dé yàllaa ko décrété nooy def ak nii nga mel ba ñëpp di waar sa julli. Mhm. mu ne ko bu ma sëñ Touba tere woon julli du ma yem ci bàyyi julli damay bàyyi waale xool penku bi ñuy xool bu ñuy julli damay ni nga mën a jullee guddi gépp ngay julli ba fajar waaw bu la sëriñ Tuubaa tere woon julli nooy def déggal lim ko laaj pour wan la murit lu xam-xam ba bari bari lu jaamu gën rëy rëy bu la sëñ Tuubaa gën a la bu lépp sag murit des na dani ko bu la sëñ Tuubaa tere woon julli mm-hmm. yàllaa ko dé yàllaa ko dékkate def ak nii nga mel ba ñëpp di waar sa julli mm-hmm. mu ne ko bu ma sëñ Tuubaa tere woon julli du ma yem ci bàyyi julli damay bàyyiwaale xool penk bi ñuy xool bu ñuy julli damay ba comme dégg lu wax kii mooy Ablaye Diop Bichri ci boroom xam-xamu gaay yi la bokk ci waxkatu gaay yi la bokk da wax ci de léegi ñun bu ñu taxawee ne xoolal lii xam nga léegi lii waa kuréel gi xam nga dégg nañ ko ña bokk moom benn kuréel xam nga dégg na ko mais duñu tontu duñ ko rectifier duñ ko corriger duñ ko corriger de waaye su alpha jugoon di ko corriger rek ñu song ko tam ko dëmm da ngaa kontu sëriñ bi est-ce que dégg ngeen lu wax bu baax kan moo santaane julli yàlla moo ko santaane kañ la ko yàlla santaane mooy jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yonente bi ak sëriñ bi ñaata siècle la ay siècle siècle siècle siècle boobu sëriñ bi kenn xamul woon existence am amul kenn ku tudd ku wax bu tudd sëriñ bi yàlla wax ci alquran wa aqimu salaa wa aatu zaka na ngeen taxawal julli di joxe azaka ñaari à chaque fois ñuy ànd taxawal julli joxe azak alquran bëri na fa du jeex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci du wax ci xadis al ahdu alladi baynana wa baynakum alsolaa fa man tarakaha faqad kafar kóllëre bu nekk suñu diggante ak yéen ay julli ko mooy julli ku ko bàyyi yéefar bu nekk suñu diggante ak yéen mooy julli ku ko bàyyi nga sallallahu alayhi wasallam waxaat ne bayna rajuli wal kufri tarku salaa diggante nit ki ak muy nekk yéefar mooy mu bàyyi julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne awalu maa yuqdaa bihi yowm al qiyam as salaa lu ñuy njëkk a régler yowm al julli yàlla mu damaa xool waa safara ne leen maa salakakum fii saqar lan moo leen yóbbee safara bi lu tax ngeen dugg fi lan la ñu wax xaalu ñu ne lam naku minal musallin daawuñu julli ok lii da la yàlla wax ak yonente bi ab Diop Bichri moom nee na Ablaye Diop Bichri moom nee na su ko yàlla su ko sëriñ bi terewul julli du xool sax xibla yaa Ablaye Diop Bichri yow ak sa sëriñ dañ leen digal ngeen julli sa sëriñ julli daa war ci moom comme nu mu waree ci yow julli daa war ci yow comme nu mu waree ci moom julli farata la ponki lislaam la boo xam ne sëriñ bi da ko war a taxawee par force bu julliwul bu demee yàlla da koy réglé yow Ablaye Diop Bichri nga ne sëriñ bi bu la teree woon julli ngay bàyyi julli du xool sax penk xool kii nu mu yàlla xool leen leen seen wax noo ciy déggalee tuuti yàlla yàlla moo digale julli de digal ko mboolee mi julli ñi digal la ko yow digal ko sa sëriñ waaye nga ne lan nga ne suma sëriñ bi ne woon ma bàyyi julli duma sax xool duma sax xool penku yow yaa yées yaa yées yaa bon kàddu yu bon yi naka la ko ab doomu aadama di waxe ci dëkk boo xam ne nee nañu quatre vingt quinze pour cent musulman kii teguñu ko ci yoon kii cawuñu ko kii woolu wuñ ko dikk ah kii woolu wuñ ko dig kii nit ñi marchuñu ndax lu mu wax ay jullit waaye ko mu ngi continuer kii mu ngi continuer def promotion ma mu ngi continuer di nekk ci télé yi ak rajo yi di wax Abdoulaye Diop Bichri mu ngi continuer nekk ci télé yi ak ci rajo yi di waxan ah. bu ñuy bu ñuy invité bu ñu soxlaa kuy waxal yoon bi dañ koy yóbbu ak wax ji mu wax yëpp te waa yoon bi taxawuñu corrigé ko na ko déedéet li nga wax nii seriñ bi wax ko moo tax des fois nit ñi bu fekkente am na ñoo xam ne des fois dañ naan noo yéen da ngeen jël ñëpp boole leen parce que bu fekkente ni ña bokk ci yoon bi dañuy wax wax yu mel nii te amul ku leen corrigé te amul ku leen corriger mais il faut que nit ñi maasaale nun ngi parce que bu fekkoon saa ñu waxee seen wax yi dina am ku bokk ci yoon bi génn gàgganti leen teg leen ci yoon doole mos a dégg nit ñi bu ñuy wax di maas nun bi waaye ñi saa yu ñuy wax seen affaire yi seen yu bon yi saa yuñ koy wax rek saa yuñ koy wax rek boo gisee am ku tontu rek ci ahlu sunna la waaye ñoom kenn du nekk ci ñoom tontu lu dul tey tey moom gis naa Kara euh, gis naa Rafaayu tontu ko mais fekkee dañuy wax li amul ñenn ñu bokk ci kuréel gi ñoo xamante dañuy jóg tontu ñi teg leen seen place régler leen punir leen mais est-ce que dina nga déggati léeg ñu naan yéen lan moo tax ngeen yab kuréel diw comme est-ce que kuréel diw ñu toogaat ñu xoolaat ñi est-ce que duñu régler ñi mais c'est parce que ñi bu waxé ñu nopi parce que tamit ñenn mën a japp ñi ñëpp benn lañ légui nak bu am benen mbir nak moy tapalé kay bo ni mo moo nekk ci tasawuf nak moy def lu la neex wax lu la neex so paré nga ne batin la a so paré nga né ma'rifa la batin arif di ay tapalé yo xam dañ ko créé dong pour mëna def bakar ak pour mëna wax lu wut ak alcorane sunna so nga ne noo kii moom aarif la moom aarif la xam na fu muy waxee temps yi am na ay boy rappeur allu brik dégg naa ci ay écho dañoo génn son na naan mawti lan moo tax nga yóbbu nga yóbbu xale bu rafet bi xale bu nangam bi lan moo nga koy yóbbu waxul reewande yooyu quoi maa ngi seetaan benn plateau waa ji na ñoo peut-être ñoom ay aarif lañ quoi ay aarif lañ mooy aarif daal mooy koo xam ne moom am na lu mën na wax lu rëy di ci jàppee ko lu garaaw fekk gar fekk ci moom aarif la quoi boobu affaire boobu baatil la quoi léegi ñeneen ñi ñooy xaam yi ñooy am awaam yi ñooy awaam yi ñoom ñoom loolu mënuñu koo comprendre loolu ay caaxaan la laa la wax ay aarif dafa amul ci diine yàlla ñëpp la tolle ñëpp a yem ci def dig lay bàyyi te rey ñëpp a yem kuy nekk aarif yonente bi moo la gën a nekk foofu yonente bi musul wax ay mbóosóor naan aarif laa yonente bi musul wax ay mboosoor naan aarif la kuy nekk arif yonente bi la gën a nekk aarif kuy nekk aarif Aboubacar moo la gën a nekk aarif bu fekkee nag ñi nga xam ne dañoo xam yàlla xam yàlla bi wax nag mooy xam lu yàlla digle ak lu mu tere mais tappale yëpp ay ñoom ibnu arabi yi ñoo ko fi indi ak ñoom xallaaj a gaay yooyu ñoo ko fi indi pour ak Junayd pour di lëre di mën a wax lu bon di mën a def lu xaraam soo pare ñu la ay diw aarif la yooyu ay tappale la existé wul ci diine amul ci diine gaay ko ay nit quelque nit ñoko créer ibnu arabi ay ñom junayd ay ñom khallaj ay ñom ibnu farid ay ñom tilmisani ñoo ñoo créer genre mots yi ay jeu de mots la rek du dara léegi gis nga lu mu wax ni après buñ ko tajoon wala ñu koy layal xam fa lañ koy layale waaye batil la xamoo fu mi waxé waaw baatin moo batil baatin moo daganal wax yu bari batil motax tax joxatuñu yàlla cieur da ngay wax sa toj toj wax lu la neex waaw ah, baatin la loolu daal mooy close débat bi baatin la waaw ah, dalil daal léegi daal texte alxuraan ak sunna moom léegi lu koy tënk mooy baatin la dañuy caaxaan rek <laughs> wallahi dañuy fond eh, ñu dem ci beneen vidéo murid yi dëggaloon yëpp dinañ bokkaale ci seen bi bis pénc bu yàlla dee yëkkati jaam yi ci seen kër yi ñu dëkkandi ñu tudde ko bàmmeel yi wala sëg yi fii la koy defee ci Tiwaawan dëkkam bi bis penc foofu lay xewe ci bu kër sëñ Tuubaa gii fii la bis yi amee te nee bu boobaa di am murit yi dëggaloon yépp dinañ bokkaale ci seen biir waaw bis dee yëkkati bu yàlla dee yëkkati jaam yi. ci seen kër yi ñu dëkkandi. ci seen kër yi ñu dëkkandi. ñu tudde ko bàmbeel yi. ñu tudde ko fii la koy defee ci Tiwaawan. fii la koy defee ci Tiwaawan. gaa yaatal leen ko mu gën a yaatu. bon bu bu tijaan bi moom bett na ma quoi bett na ma. Euh, vidéo bi sax am na wax dañ ko dagg mais bañ demee ba gëstu ko gis nañ ni moo ko wax kenn dagg ko ko kenn dagg ko gis ngeen wax yi fii moom damay bàyyi rek ñaari wax yi àtte seen bopp kii nee na bis lay xewe hmm? Touba lay ame kër Serigne Touba Abdoulaye Diop Bichri kooku moom mu ngi noonu kooku moom narkat bu mag la kee moom nee na Tiwaawan lay lay xewe waaw léegi nag ñaari moom il faut mu am nag ci benn bu muy xewee nag buñ leen buñ leen nanguloon seen wax buñ leen nanguloon seen wax il faut mu am nag ci benn bu muy xewee nag wax dëgg fa yàlla il faut am ci benn boo xam ni foofu lay xewee moom comme dangay gis ne lii yëpp ay caaxaan la man li ma jaaxal mooy adduna bi nu mu yaatoo nu adduna bi yaatoo yëpp yëpp yëpp yëpp adduna bi am nga màkka foo xam ni falaka la kaaba nekk foo xam ne jullit ñëpp bu ñuy julli fala la ñuy jublu foo xam ne néegu yàlla bi fala la nekk foo xam ni mooy dëkk bu gën ci dëkk yi nga am Madina nga xam ni fa la ñu denc sang bi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni jumaa ba fa nekk ginnaaw màkk mooy jumaa bu gën ci jumaa yi suuf soosu di Madina yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ku fa mën a faatu na fa faatu borom xam ne faatu fa sabab la ci mu ramm la dëkk yooyu de doo dégg sax kenn ko daan fii lay xewee fii lay amee nga bàyyi Palestine bi nga xam ne lu ëpp ci yonente yi fa lañ tëdd Palestine Jérusalem lu ëpp ci yonente yi fa lañ tëdd est-ce que mës nga gis benn ci wa màkka bu génn ne la yowmal qiyam de fi lay xewé waaw ci kaaba gi fi est ce que mus nga Medina ku génn la yowmal qiyam fi lay xewé est ce que Jérusalem Palestine mus nga dégg loolu waaye Sénégal benn dëkk bo xamné amul fenn fu ko yàlla tuddu ci alcorane dëkk Sénégal amul fenn fu ko yàlla salatu tuddu ci hadith dëkk Sénégal te pourtant yene ñoo na ci alcorane Makka bi batni makkata ñoo na ci alcorane te mu am ay ngëneel yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nekk ci Màkka ngëneel nekk ci Madina pourtant foofu yowmal xiyaam du fa tukkee de mais fu muy tukkee mooy benn dëkk bu ñuy wax Sénégal ci ñaari pukus benn bi mooy kër sëriñ bi <laughs> mooy bawal beneen bi moom mooy Kajoor boki yi xalaat leen non aay warul bëri sax warul sax indi ay aay ay xadis mbokk yi use leen ko quoi use leen mind bi xalaat leen tuuti suñu xel yi yàlla daf ñu ko defaral ngir ñuy xalaat ngir ñuy xalaat ko wax yi warul taxawul fen lu dul ku nekk rek bëgg a yëkkati fa nga bokk ak bëgg a sellal fanga bokk ba pare kenn du teye sa loxo nag xoolal Bichri Bichri mi xool ko rek xool ko lu wax léegi léegi nee na suma sëriñ bi tere woon julli ma bàyyi julli dañ fa jógee rek mu ñëw mu ne la yowmal qiyaam fii lay fii lay xewee charlatan yu mel ni Bichri naka la leen di bàyyee ji wax te ay Bichri ñoom la ñuy invité ay Sen TV ay TFM ci teley émission dine émission diine ah bañ nañ ko sax ba dañ naan émission religieux religieux nii ku ñuy invité Bichri ku ñuy invité Gana Messere Bichri bu ñëwee lan lay wax yàlla nee na yonent bi nee mooy wax bi comme wax yi mu wax su ma sëriñ bi terewul julli ma bàyyi julli am na fu mu waxee sax ne ne ne ne Saalum mooy yàlla am na fu ko waxee. gis nga ñëwaat na la yowmal ci buntu këru sëriñ bi lay lay xewee waa léegi nag euh, ñu ne nag ñu ne nag ah ñu ne non ñu ne non yow Umar Sall da ngay noppi. Omar Sall yoy yow da ngay nopi yow bul wax Alpha yow da ngay nopi bul wax <laughs> kene da kene da ngay nopi bul wax voilà léegi daal diine ju mom ay nit dañ koy jël di ko salfaañe di tuutil yalla di tuutil julli lay ñu ne non yeen yéen yeen no yeen da nga wara nopi bu wax bu leen diingat maandu allahu mustaan yàlla yalla dindi yalla dindi mbokk yi ñu ñëw ci benen akhi man bi ñu noonu yàlla nga ne am forme ñu ne xam yàlla du ma gis Xadim du gis c'est que ma bëggoon ñu xam ko lii man mooy yéen ku tedd ki moo tee ate wuñu moo nu tee ate ñun man ak yéen ak ñu mel ni ñun tous les bambistes au national comme international bu dul woon a ko tedd que ñun ñëpp bu ñu dox dañuy walis sax suñu est-ce que mën nga ma indil tàmbali vidéo bi tàmbali bi fa muy waxee ni sëriñ bee gën. yàlla mi ngay wax yaa ko gën fopp. <laughs> Cheikh Ibrahima Fall <laughs> man damaa bëggoon ñun bu ñuy sakk sunu sakkiin xam nga yenn ma dégg sañu am di ko bu ñuy sakk sunuy sakkiin ak sunuy waxeen nu bàyyi ñu ci lu ñu ci góobe gar. waxoo ñun ñoo wax defoo ñun ñoo def bàyyi noog suñuy wax ak suñuy def dem jaroo góoxe lex xaw ma ku ma umpale de waaye man ku ma xam bi ñu noonu yàlla nga ne ma xool mu am forme ñu ne ko tedd kenn ne faw ci kenn ngay dem xam man yàlla du ma gis wóor na Ahmadul Xadim dama gis c'est que li ma bëggoon ñu xam ko lii man mooy yéen ku tedd ki moo tee ate wuñu moo nu tee ate ñun man ak yéen ak ñu mel ni ñun tous les bambistes au national comme international bu dul woon a ku tedd ki ñun ñëpp bu ñu dox dañuy walis sax suñu سبوا سبوا جزاك الله خيرا بارك الله فيك بقي لا حول ولا قوة إلا بالله آه، لي سنغال لنكو خير gis ngeen charlatan bu bon bi satan bu bon bi barki de moo njaay yàggul dara fii la wax ni sëriñam moo sàkk asamaan ak suuf yàggul dara xam naa mu gis tontu yi mu yëg tontu yi muy ñëw ne xaar ma wax la gën a garaaw la ma waxoon comme que iblis la oleka mu jema xol lañ ko wax waxam ju reja parce que bamuy wax serigne be sak asman suuf xamna ni reyna de dem moo mu ne naru mako won sax wax parce que ñom lolu seen jeu la bok bu ñi nar seen nar dañ nan non naru mako won sax wax waye lolu sax waruñu ko wax wala waye lolu batil la gis ngeen ko lamu mu muy gëna fédali ab kéefëram nee serigne bi Cheikh Ibra da koo xool ne ko yaa ma gënal yàlla yow yaa gën yàlla nee na sëriñ bi muuñ sëriñ bi ree lan la bëgg a wone foofu li fo bëgg wax dafa leer mooy sëriñ bi moo gën yàlla te sëriñ bi nangu na ni moo gën yàlla parce que ba ko Cheikh Ibra waxee après sëriñ bi dafa ree quoi dafa ree sëriñ bi newu ko déet sëriñ bi dóoru ko sëriñ bi merul sëriñ bi deful dara mais sëriñ bi daa ree ah, histoire bi man bu fekkee dëgg la fekkee dëgg la fekkee dëgg la ci boppam sëriñ bi laay condamné bu fekkee dëgg la te daway toog wax ko carrément décortiquer ko radd ko ci alxuraan ak sunna tontu ko ci alxuraan ak sunna euh, léegi nag bu fekkee lii waa yoon bi noppi nañ ci rek mooy comme Kara lu wax dëgg la bu fekkee waa yoot bi nag jug nañ tontu ko rek mooy moom moo ko sosal sëriñ bi comme ñu ngi xaar ci yoon bi bu fekkee lu Kara wax nii da ngeen cee noppi rek ah comme dañ naan dëgg la sëriñ bee ko wax. majjal su majjalee bu retourné day jël la mu majjal jënd ay xar. toggalee def ko ci bërigo tëmbal ko géej pour mu dem Gabon fekk sëriñ tuba mbokk xaaral la ilaha jazakallah xeer xaaram àggal li mu doon wax ci kara léegi moom kara di kenn ci représentant iblis kenn ñuy représenté iblis ci Sénégal ci kaw suuf ndax tax moo wax ko mooy genre wax yi ku koy def moom mooy ku koy wax rek ak doxalin ba muy dox rek mooy yow représentant iblis nga ci kaw suuf nee na sëriñ bi moom moo gën nee na moo xool ne ko yow yaa gën yàlla yaa ma gënal yàlla xol fuñ ag rek ci mbon xol fuñ ag ci mbon wax bi doo ko dégg fudul afrique de l'ouest benn dëkk bu ñuy wax sénégal ci ñenn ci ay maara bu fekkee yéen da ngeen dëgër fit ba sañ yàlla wax ba sañ di wax ci yàlla lu nekk di tuutul yàlla fit boobu ngeen am am nañ fit bu ko raw bu ko ëpp toog na leen da ngeen di fenn metuñ len ben yon ngeen nek di wax sen merdi di dépasser yalla ak yonente bi ñu tok ne pat da ngeen di sonal sen bop day fen lu wax ni ay fen la te lu bëggam sax moy da ko créer du dëgg waaw man duma dekk fi sax naan est ce que sëriñ bee gën yalla sax di indi ay ay wala hadith loolu mo après damay damay mujj melni mom quoi mais ci gattal day fenn lu wax ni ay fen yu toy xep la day fen lu gëna a bon nak moy mag buy fen mag buy fen ragal yalla ragalal yalla kara ragalal yalla tuubal bala ngay faatu billahi <laughs> ay way bo duggé ci bàmmeel ngay xam nekkal fi di wax rek dala aduna jaay rek talibé di la jaay seetaan di la jaay rek ngay jaayé ko rek sa bisagi ñew yalla de yàlla xoolal yàkkamtiwu la xam ne doo ko rëcc kooku yàkkamtiwu la yàlla dina la kepp yàlla dina la xoolal yàlla dina la jat su boobaa dina leer su boobaa sa balballu bi ak sa rëy-rëylu bi ngay def ni ay nañ ñu bàyyi ay ñoo tey voilà su boobaa nga wax ko foofu nga wax ko yàlla bu nakir ak munkar buñ la fekkee ci biir bàmmeel yi nga wax leen li nga wax nii dangay jaay sañ wax dangay jaay yow dangaa am genre yow lu la neex wax quoi amoo looy ragal amoo looy tiit amoo looy jom non dina leer am na foo xam ne boo fa duggee dina leer nañ continuer rek ak ni nii mais da ngay fen li nga wax ni dëgg waxaan na ci waxam ne euh, yowmal qiyaam bu sëriñ bi taxawee ne yonente bi taxaw ne da koy romb direct waaw dem wuyu ji bi waaw loolu moom xalif bi wax na ko xalif xalif bi wax na ko xalif bu mag bi su fekkee mbokk bi vidéo bi jege na ko wala am ko ko am nag ko envoyé waaw Kara moom su waxee lii bon dafa tuuti quoi waaw su waxee dafa tuuti moom parce que lii mu njëkk a wax rek bu waxee lii loolu nekkatul reewande quoi loolu nekkatul reewande mais dafa dépassé reewande hmm. lu gën bon nag mooy mag bu reew ko mag boo xam ne dafa fat reew xamul boppam ku manqué yàlla respect ñu manqué la respect du ne nga yàlla bu taxawee ne yonente bu taxaw ne yow faale wala danga leen di romb da wuy sa sëriñ nga dem loolu nga wax ba yowmal qiyaam mbokk yi rendez-vous yowmal qiyaam incha allah ñu xool ba xam yowmal qiyaam bu yàlla taxawee yo yonente bi taxawee ba xam karala mu wax dina ko def maanaam xel lu wax du dëgg lu wax du dëgg léegi rendez-vous rendez-vous ñun ñëpp yowmal qiyaam incha allah xoolal xeetu tuutil yàlla ak xeetu tuutil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay man faalewu ma yàlla faalewu ma yonente bi sa sëriñ bu mënoon dara du nekk ci loxo tubaab leen waxee nag ngeen commencé di saaga sa sëriñ su mënoon dara mais du nekk ci ay loxo tubaab sa waaye ñu téye ko fa su fekkee mënoon na dara ay trente ans et quelque ku mun dara sëriñ su mënoon dara dina dem aji màkk bind na ci al futuxul fataax ci benn téere mu ne yàlla maa ngi lay ñaani dem ziyaara yonente bi mais mënu ko parce que dafa nekkoon ci ay loxo ba mënul dem sax ziyaara yonente bi mënu ko kooku lan la mën sa waay histoire a ngi fii da ngeen di wax comme ñun xamuñu histoire quoi comme si ñun Paul Martyr amul bind comme si que David Robinson amul bind bàyyi fi waaw ah, histoire a ngi fii yéen yéen a saxal nit dafa nekkoon ci loxo tubaab ba tubaab yi ñoo ko dugal ci bato bi ba sax ci ngeen indee seen julli géej kooku mën na da ku ñu téye kooku mën na dara ku <laughs> mbokk ñu dem ci beneen vidéo mais nag tooke laa si ku ma bañ fa tawran u xay léegi-léegi man bàyyi damay dundal bàyyi sa ku juratu doom bul gërëm kenn gërëm maa tax mu jub fa tawran u xay taaratan ay nu xaatiri bàyyi sa képp ku dee bu leen bu leen jàmbat kenn bu leen wax Mikaayil bu leen ko jàmbat kenn nag dañ koo liggéey bàyyi sa laay lañ ma ko mission moo jeex ci àddina ma jëlee ko ku fi jógee maa ko fi jëlee ku ñëw maa ko indi bàyyi dina alam bi ku fi ñëw maa ko indi ku fi jógee maa ko fi jëlee mission bi jeex na ma jëlee ko fi moo tax waxoon ci làmmañ bu Baye ne wa maa xalaqa rahmaanu kullan sahituhu wa qaatatuhum turan wa hum tahta xidmati lépp lu yàlla bind ba mu koy bind maa ngi toog moo tax ku am may gërëmal Baye bàyyi sa nag ku yàlla bind ba mu koy bind maa ko toog bu ko yàlla naree jox may ma bàyyi ma ne ko yàlla kii mayam ëpp na lii jox lu ëpp nii kon ku mayam rëy gërëmal bàyyi daañu se ne ku sa maa rëyal may bala yàlla nga rëy jox ma ne ko bàyyi ma ne ko yàlla joxal jàmm bi lii muy jox ma ko tuuti na dollil muy dolli ma ne ko lii la mérite wa maa xalaqa rahmaanu kullan sahitu wa qaatatum turan wa hum tëdd ximmati ñoom ñëpp laa waxat lu yàlla bind yëpp wax ñoom te ñoom ñëpp ña nga suufu sama at mu ne bàyyi mbay loolu yaa ko wax sama làmmeñ waaye dama koy waxal sama bopp man <laughs> <laughs> bàyyi nee na man bàyyi xabaar yi muraadi xabla xel mi wa nasati yàlla jox na ma sama sàkkute fokk booba dara sosugut avant yàlla di bind asmaan di bind suuf di avant dara di am booba li ma am booba bu njëkk bi balaa may fàtte eh, ok gis nga de affaire yi moom foo jógee dem feneer rek nga jàpp ni nga jàpp ni fii la quoi fii la gën a fo juga dem sore nga jàpp ni fi la gëna a quoi wa da ngay juga tarixa bi dem benen tarixa rek dégg leneen senegal la de ah senegal la moo tax gis nga julit fu ñu yalla wax ak yonente bi buñ fa ko rek duñ am problème yonente saa bu fi jógee dafa na bayina ci yeen ñaar ñaar yo xamni bo la ci tënkoo do leen réer mu ne alkitab wa sunna téré yalla bi ak sunna bi gis buñ fa yemoon yalla neena na bi neen duñu réer waye bañu créer ay yoon nak parce que yoon yi yagul xoola rek ku nekk nag waaw di xëcc rek jëmale sa boor waaw ba ginnaaw ba ñu jógee ci ñoom Bichri moom Bichri bi ne moom yowmal xiyaam moom fële lay xewee kër sëriñ beeg sëriñ bu ko tere woon julleeg ñu jógee ci eh, Kara mu ne moom eh, Cheikh Ibra nee na sëriñ bee gën yàlla hmm? léegi ñëwaat nañ ci beneen kër dem nañ Saalum ah, kii moom nee na moom sëriñam moom képp ku dee moom la képp ku dund moom la képp ku am lu mu mënta am sëriñ bee jox waaw nee na Baye Niass quoi mu ngi noonu waaw léegi daal adduna bi yëpp Amérique États-Unis États-Unis Angleterre Allemagne Arabie Saoudite Afrique nga mboolem mboolem dëkk Afrique mboolem dëkk asi Asie mboolem continent mboolem dëkk yu nekk euh, continent Amérique mboolem dëkk yu nekk Asie Océanie yëpp booleen boole daal lu waay am Baye Niass moo may képp ku dee tamit baajas moo tax nga dee waaw képp ku dund tamit baajas moo tax nga dund <laughs> eh, waay waay Sénégal waay Sénégal moo neex Sénégal moo neex Sénégal a neex eh, baajas mënul dundal kenn mënul rey kenn mënul may kenn Baay Ñas doomu aadama la ni doomu aadama yépp jaamu yàlla la ni jaamu yàlla yi ñépp bu faatoo dañ koy xisaab nu ñuy xisaabee jaamu yàlla yépp kii tamit waa tarixa boobu war nañ génn tontu ko de sinon buñ ko tontuwul rek mooy ñoom it baatin xam nga nag waa waa Saalum ñoo fi dàq woote baatin nag ñoom ñoo ay maarifa ak yooyu fu mu ne nii boo leen laaj naan noonu loolu xam-xamu maarifa la quoi dañ laa xam-xamu maarifa la loolu aami loolu loolu xaami bu ñu ko comprendre ñoom xaam la ñuy wax quoi mais xam naa ay awaam ñoom loolu lañ lay wax ah nee naa xam-xamu raasaay lii xam-xamu maarifa la fu muy waxee nii xam-xamu maarifa la quoi ah léegi daal ku jug daal woote xam-xamu maarifa moo tax ma leen maarifa ay caaxaan la rek saxul feet ay gars yi ko créé ibnu arabi xalaaj tilbisaani ñoo ko créé rek di leen réeral parce que xam-xamu maarifa boobu boole ko wootee ku mu neex mun na woote xam-xamu maarifa que Wally Seck da woote léegi bu def musique bi muy def ak pain yu muy sol su paree xam-xamu maarifa lan ngeen ci mën da ngeen cee mën dara comme que yéen am ay rappeurs yoo xam ne ñoom ay dari bi soor ak ay ahlu bir dañuy wax lu leen neex ba pare mu nekk maarifa kay mu nekk xam ñu ay que ay maarifa lañ comme bàyyi leen ko mu neex rek nekk maarifa bu rappeur demee ba am maarif ba nekk ba nekk aarif rappeur bu nekkee aarif Wally Seck mën na nekk aarif Balla Gaye mën na nekk aarif parce que ñoo bokk lu ñu def musique musique la rek waaw comme nga ne ngeen rappeurs yi boy ahlu biriki ay arif lañ ay arif lañ moo tax ah léegi kay Wally da nekk arif bu leen dal Wally Seck ci peew yu muy sol ak ay yëre góor jigéen yu muy sol comme moo lay woon loolu ay caaxaan la loolu amul fenn waa tamit day nar kii wax ni day nar lu wax amul fenn allahu la ilaha illa huwa alxayyul qayyum yàlla mooy kuy dund dafa bokk ci turu yàlla alxay ak almumeet alxayi nee nañ moom moo yor dund bi nga xam ne dund bu mat sëkk la moom mooy ki nga xam ne képp ku dund moom moo dundal moom moo tax nga dund képp ku dund moom moo tax nga dund almumiit moom yàlla dafa bokk ci ay turam almumiit mooy kuy faat al gis nga al bu ñu al mooy loolu kenn kese la moo ko mun bu ñëwee rek mooy kooku jeex na amatul keneen bañes bu mënoon rey bañes bu mënoon rey duñ ko rey bañes dañ ko faat ku ko faat mooy yàlla kon kooku mënul rey kenn mënul dundal kenn mënu ko dañ ko dundal ka ko dundal mooy yàlla dañ ko faat ka ko faat mooy yàlla beneen tamit bañes joxul kenn ka am yàlla moo la jox bañes joxul kenn waaw naka la ñuy amee koo xam ne ci Sénégal moom képp koo xam ne loo mënta am moo la ko may ba pare Sénégal nekk vingt cinquième pays bu euh, pays boo xam ne moo gën a ñàkk ci àdduna bi waaw ana Baye ci xel la yàlla mu ne mooy al mu'ti yonent bi salaa sallam na innama ana al qasim wallahu al mu'ti man damay séddale rek yàlla nag mooy koo xam ne moom mooy al mu'ti al mu'ti alif laam dafa ñëw mooy koo xam ne moom mooy joxe lu nit mën a am moom moo ko jox doy na waar mbokk yi mbokk indiwaatal beneen euh, vidéo mën nga indiwaat beneen vidéo mooy ma bàñes nee na man bàñes nee na man bàyyi abaani muraadi xabla wa nasati yàlla jox na ma sama sàkku te fokk booba dara sosoogut avant yàlla di asmaan di suuf di bind jaww avant dara di am booba li am booba laa am booba xam-xam amagul sosu amagul خباني مرادي قبل علمي والنشأتي بعد فمني نوال الكل فمني جوجيني تمن نوال الكل ما ينب مولم ما يتمن باي لجوجي والكل ما نهي تما يفهم ما يلم على كل علم جمو جوج موي مولانا شيخ ابراهيم تاي بس بي موم لي نيرو كي خامن محمد المصري دا فا توغال موم يات مو خول كان كو رايتك يوم الجمع عبدا وسيدا وقد كنت قبل القبل في حضره الكنز في حضرة القدس كما كنت قبل الخلق لله زاجرا وقبل وجود العرش قل لن قل لن مشري لنا بايس وقبل وجود العرش واللوح والكرسي منك فإنك سمت الحق سرقا ومعرفة فإنا بعمد الله في بعض الشمس مصري لنا بايس بينا وكان جعلا بدي نت نت لواي باي دو نت مصري لنا بايس فما عالم بدي نت نت لواي باي دو نت تباينا كو مصري بلا ما كو وخال مكو سبب كيغا باي بوك دا ينين سيرين سيغا خامني taalibe mooy toog rek bëgg lu ne sëriñ bi mu créé ay waxam jox ko bàyyi li ko koy waxal avant ko koy wax moom moo koy wax bàyyi ne tasunnuuna annanii insaaniyun walakin nuuri yamsi ala al ard bàyyi ne sena yéen da ngeen a njort ne man nit laa du ma nit de man leer laa ji dox si kaw suuf dégg naa gàmmu kër de kuy gàmmu ci na nuuru awalul wujud bil wujuda jazakallah xeyran waaw dégg ngeen euh, waa Saaluma ah. ginnaaw bi ñu jógee fële Bawol ak fële mu wax tamit moom it ay wax yoo xamante ne ay waxu neen la ci vidéo bi nee na baañas avant ñuy sak arash lañ ko sak mu ne wat baañas xamna bepp kump avant nga koy wax mom lay xam liñ koy wax waxaat na loolu mu ne baañas ab leer la bu dox ci kaw suuf du nit mu ne baañas du nit du nit ok ñu ñëw ci baañas du nit d'abord yonente alayhi wa sallam bi nga xam ne de moo gën baañas alayhi wa sallam bi nga xamne mo gën baañas ndax yàllaa ko wax ci alxuraan te yàlla wax ci alxuraan la ñuy gëm ci lu nit wax waaw ku bëgg nag ku bëgg saxal di bàññees moo gën ñëpp wala moo gën yonente wala moo gën ñëpp dañuy indil aaya alxuraan wala xadis soo ko indil boo indiwee boo indiwul leneen lu dul lii dañ koy rejeté teg ko fële ndax ñu jullit alxuraan ak xadis mooy lu ñuy atte alxuraan ak xadis mooy loo xamante ni moom moo ñuy atte yàlla moo ne ci alquran wa innaka la ala xuluqin azim yow gën ñëpp yaa gën ñëpp ok bàññis ci la bokk keneen ak keneen ci la bokk ñëpp comme bàññis gënul nit la léegi bàññis bu fekkee nee na bàññis du nit yonent bi salaa sallam bi nga xam ne moo gën ñëpp moom nit la moom yonent bi salaa sallam neen qul innama ana basharum mithlukum yuuxa ilayya wax leen ne leen man ab nit laa comme yéen lu fi am kay mooy dañ may wax yu yuuxaa ilayya dañ may wax yu qul innama ana basharun mislukum man nit laa comme yéen nit laa comme yéen waaw bu bi nga xam ne yàlla nee moo gën ñëpp moom nee na nit la comme yéen bàññes tamit nit la comme nit ñi léegi bugg na la wax bàññes du nit dala la bëgg wax ni bàññes yi bàññes bon yàlla la mais munu ko leeral quoi munu ko munu ko wax mu leer ni mais da lay jéem a naan da lay cuq dafay ishaaraat affaire yooyu quoi loolu benn la comme loolu ay waxul neen la wax jooju amul Baay Ñas nit la bu am ay wayjur hmm? bépp nit képp ko xam daa am ay nit ko xam nañ ay wayjuram abla Ba abla Ñas sëñ Ablaay Ñas wayjuram la ak tamit euh, kii euh, fàtte naa turu wayjur bu jigéen bi mu am ay doom tamit doom yaa ngi fii xam nañ leen ñoom na Naziru Ñaas ñoom euh, Baaba Lamin ñoom ñeneen ak ñeneen bëri nañ comme nit la quoi waaw léegi nag ne nii boo leen waxoon li nga wax foo ko teg rek du la indil aaya du la indil alxuraan de tappale bu mu lay delloo mooy baatil baatil la lay delloo rek naa aarif mooy caaxaan yooyu quoi comme ni ma ko waxee sànq mu ne bàyyi dañ koo sàkk dafa existé moom dafa existé xam lépp avant ñuy sàkk arsh loolu wërul loolu lu ko weddi mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam yonente sallallahu alayhi wasallam nee na kaana allahu walam yakun shay'un ma'ahu ci beneen riwaaya shay'un ghayrahu yàlla dafa nekkoon te amul dara lu ànd ak moom xadis boobu ngi ci buxaari muslim dafa nekk te amul dara lu nekk moom voilà ba mu nekkee fekk amul dara lu nekk ak moom kataba fi zikri kulli shay mu daal di bind ci lawxul mahfuz lépp lu war a am lépp lu war a xew mu ne wa kaana arshuhu alal ma mu nga ca kaw ca kaw euh, ca kaw ndox arsham mu nga ca kaw dox na ne kaana allahu walam yakun shay'un maahu yéen a sallallahu alayhi yàlla dafa nekk te amul dara lu ànd ak moom dafa nekk te amul dara lu nekk ak moom comme bàñes nekk fa woon mu ne mu bind arsh ba muy bind arsh bàñes nekk fa woon bàñes xam nañ ban at la juddu xam nañ ban at la faatu bu la ñu fontoo bu la ñu fontoo xam nga tamit lii laay waxat rek bu fekkee tam am ñu nekk ci yoon bi ñu ci yoon wax lu leen neex ñu noppi tontu wuñ leen day mel ne ñoom bëgg saxal lu ñuy wax léeg-léeg Sénégalais moo dafa gëm affaire yu Mickey affaire yu Mickey tricage dafa gëm Sénégal danaa la exemple mille neuf cent nangam la juddu waaye nag ci baatin ci baatin ma moom existé na lu yàgg yàgg yàgg waaw mooy tappale bi nga xam ne moom la ñu indiwaat rek <laughs> yàlla yàlla yàlla yàlla musal ko comme loolu la wax euh, beneen bi euh, am na beneen bu mu bu waxaat encore euh, fàtte naa beneen bi nga xam ne moom la waxaat comme lii yëpp ay mbir la rek gis nga tarixa moo demee nii rek tarixa moom ku nekk da ngay rek waaw ki nettalee ba doy rek jox keneen ki nettali doy na waar mbokk indil beneen bu mujj ñu tëjee boobu xool question yi bu fekkee am na question léeg mu la mu wax nekk biir ndar léeg su majaalee ba retourné day jël la mu majjaal jënd ko ay xar togg leen def ko ci bërigo tëmbal ko géej pour mu dem gabang fekk Serigne Touba. la ilaha illallah. Euh, mbokk baalu nga indiwaat ko baalu baalu baalu nga indiwaat ko. ba baalu nga indiwaat vidéo bi. <clears throat> su màjjaalee ba retourné day jël la mu màjjaal jënd la mu màjj wax rek mu ndekk biir ndar léeg-léeg mu màjjaal su màjjaalee ba retourné day jël la mu màjjaal jënd ko ay xar toog ba nga la ilaha illallah wax rek la mu wax mu nekk biir ndar léeg-léeg mu majjal su majjaalee ba retourné day jël la mu majjal jënd ko ay xar togg leen def ko ci bërigo tëmbal ko géej pour mu dem gabang fekk Sëriñ Tuubaa la ilaha illallah <laughs> non lii moom ay léeb la quoi lii moom lii moom ay ay ay tricage rek ak ay ak ay léeboon vraiment euh, jox ma beneen vidéo jox beneen vidéo bi sëñ Tuubaa nga ne dama leen di romb ñu fii ci sëriñ bi damay wax ne bu fekkoon ne bi biir dañ fa taxawe ñu ne suñu borom a nga ne yonent baa ngi yonent bi ma nga ne sangu bi dee yëpp sëñ Tuubaa nga ne dama leen di romb ñu fii ci sëriñ bi loolu moo doy te dara mënu maa doy na fi mu loolu waaw kon bu bis benn bi ba taxawal ñu ne suñu borom nga ne yonent bi nga yonent bi nga ne sangu bindee yëpp sëñ Tuubaa nga ne dama doy dara mënu maa doy nag loolu li Kara wax ni moom la xalif bi wax la même chose waaw nee na yowmal qiyaam bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne nee na mu romb yàlla ak yonentaam dem wuyu ji sëriñ bi comme lii laa leen doon wax ma ne leen lii mook la Kara wax benn la teg teg waaw Kara la mu wax nii am na ku ko si jiitu ah, bu fekkee nag ka jiite ka jiite yoon moom mooy wax lii moom a ah, comme nañu xam ne moom mbiri daal doon waar muy noonu quoi ko wax ji waxu xeeb yàlla ak yonentam la wax ji waxu tuutil yàlla ak yonentam la waxu jël mbindeef la teg ko ci kaw yàlla ak yonentam waaye nag àllaaxira dafa ñëwagul nag àllaaxira ñëwagul àdduna moo neex aduna moo neex ñu toog di wax lii ah naa man faalewu ma yàlla bu yawmal qiyaame bu yàlla taxawee ne yonente bi taxaw ne waaye dama leen di vif waaw dama leen di vif dama wuyu ji sëriñ bi waaw dafa fekk aduna neex rek yaa ngi ci aduna deewagoo waaw bu ñu demee ba yawmal qiyaam la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah ay bu ñu demee ba yawmal qiyaam ba yàlla di wax yaa ma'shar al jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaari samawati wal ard fanfuzu yàlla na leen waaw bu fekkente ni yéen mun ngeen mu rëcc ba génn sama moomel daf leen